asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm tey ñu jàkkaarloo kenn fi nga xam ne mooy ci keppaaru Cheikh Ndigal Sène papa salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. gi naka la. Serigne Saliou bu Serigne Cheikh Ndigal Sène. Serigne Saliou bu Serigne Cheikh Ndigal Sène. waaw Serigne Saliou tey fi nga xam ne mooy gamu Cheikh Ndigal Sène tey ñu ñëw fii ngir bokk ak yéen waxtaan waaye lépp loo xam ne ci liggéey bi la ñu wone ko euh, ginnaaw bu ñu leen nuyoo. bés bi nga xam ne mooy bésu Cheikh Ndigal Sène ak ndax bu bëri bi nga xam ne am na ko ndax mën na indi yenn jafe-jafe ci li nga xam ne mooy taalibe yi ni ñu war a demee ak dikkee. ñoo ngi sant bu baax di jëlee ni sallallahu alayhi wa li nga xam ne moo waral seen Cheikh Ndigal Sène bés bi siyaare bokk taalibe yi nga xam ne ndox mi moom gis nga mel nga xam ne baaxut ci taalibe yi. waaw baaxut ci taalibe yi baaxut ci wàllu jaaykat yi ndax mën naa indi micro. dañ jàpp bu baax ndax suñu sax ndigal moom baax la wax yàlla daaw lu xaw a waxtaan tuuti ci wàllu ndox mi ndax ndox mi gis nga nim mel ñu ci mën a leen nag ndox mi génn fi mu ne ci baax lool ñu sant yàlla bu baax a baax a baax ndax sëriñ Cheikh Ndigal Sène ñun li nga xam moom la suñu Cheikh Ndigal Sène jar mën ñoo xam suñu Cheikh waaye nag yal na leen yàlla fay bu baax a baax a baax salaamaaleykum sëñ bi nuyu nañ ko. waaw ah, si siyaar nañu baax waaw Baye Baye Diaw tur gi naka la. kii Baye Fall Diouf lañ ma waxee nag. Baye Fall Diouf tey. bu Sambatut. Euh, Baye Fall Diouf tey ñëw nañ fi nga xam ne mooy Kër Cheikh Ndigal seen muy bés bu mag boo xam ne saa su ne mbokku taalibe yi dañ koy magal ànd ak sëriñ bi bés bi li tey lan nga ñu mën a wax ci bésu Cheikh Ndigal bi. bés bi de moom. ndax dëgg doon bés bés la. Mhm. li ñu gënaloon sax moom bu ñu ko mënoon sax moom mu am ay juróom-ñetti fan. te te te te duñu soppi ndax ngëneel bi ci nekk fi mu ne nii moom li ci nekk séeréer yi dañoo am loo xamante ne moom mosuñ koo am kon lii bésu séeréer yi bésu bésu jullit yi la bésu murit yi la kon kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax olof jaay dina moom li li li duuf ci nag wi rek daa xajut ci cin waaye kon ci ñu wax ci wax bu yaatoo yaatoo yaatoo waaye li ñuy ñaan mooy yal nañu def ko ay at yi at at ci barke suñu Bamba barke si Cheikh Ndigal seen wasalaam. ah mu mel ni euh, bés bi bésub séeréer yi la comme ni ñu koy waxee rek euh, séeréer si daa am loo xam ne dañ koo xam ne muy jom fula ak ngëm bu mat sek eh. tey ndaw yi nga xam ne ñoo nekk seen kanam doon ay taalibe tey ni ñuy taxawoo ci bés bi boo leen doon denk tey lan nga leen di denk waat ngir ñu mën a jàpp si bi. li ma leen di denk rek mooy la sëñ Ibrahima Sène Samba tudd wax. Déme Bala Gadio di tëb moom euh, Sorkat daa daa jàpp ndigam bi pare kon moom fecc fecc bi moom euh, dina ko yomb waaye boo toogee ba mu egsi nga doog di waaj kon moom doo moo doo ci mën dara taalibe moom fu mu nekk boo déggee suñu laxasaa yi ñu laxas lu ah siñ si siñ siñ bi ko jiite ah dafa waxoon ne moom talibé day takku day takku comme yow bo bo boo aduna dañ lay bo bo bo boo bi ñibbiwaat dañ koy dañ lay tak kon bu bu ñu bul tikeku kon loolu moo tax ñun dañu wara takku xalé yi tam ñu di soñé li yal nañu def ko ay ati ati at ñu jangal leen li ni ndax li la bi ci naam mo ñu ko wax ci fan waye yel Sëriñ nga xam bi nga xamanteni mo am pay yel na fay ñep ci barki Bamba wasalaam jërëjëf euh, loolu mooy nga xam ne rek Sëñ lool loolu la ngeen indiloon fii lee nga xam ne mooy ci bés bi euh, dugg ci ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ñu laajte leen naka la ñu xamee bés bi bés bi naka la taxawoo muy taxawaay bu sel boo xam ne Cheikh Ndigal def na ko fi waaye mbokku taalibe yëpp dal nañ ko fi def mais tey comme ñu ko waxee rek gis nañ sappoor ñëw ne ngir mën a évacuer li nga xam ne moom mooy ndox mi fii lee nga xam ne mooy ci kër Cheikh euh, Ndigal Sène kon ci kanam tuuti rek incha allahu rabi daañu dellusiwaat ngir wanaat leen leneen ak ñeneen i kilifa asalaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen jëf.